ay simili ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakarnet daara du ci réew mi. waaye Balla Gaye ñu jëm ci bés bu mag sa diggante Bombardier di boo xamante ni combat revanche la Balla Gaye jàpp nañ ne mbër la moo xamante ni yaakaar na ni ku taxaw ci kanamam rek moo la mën ku taxaw ci kanamam bu la jàppee da lay dóor da nga war a bëri combat revanche est-ce que Balla Gaye warul changer stratégie ci combat bi ci digganteem ak ki nga xamante ni moom mooy bombardier. maa ngi nuyu Lamine Golo mi nga xamante ne moo nekk école de lutte Balla Gaye di fa daan doole vraiment muy taxaw booy yi leen wax macha allah liggéey bi rafet na danga koy ñaanal yàlla. ah ma laaj nag sama revanche samay revanche supporters yi toog mu jaral ma ma dem bitim réew. ngir ñoom bu bés ba allah ba ma jër leen nag laa lay wax waxuma waxu micro de bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko allah. moom moom léegi xaaral Omar balaa ñu balaa ñuy ñëw ci ci question yi balaa ñuy ñëw ci question yi dafa am fu làmb tollu instant bii nii muy violence bu bari bi ci làmb am combat bu mag. bu jaar bu jàll ci jàmm bu jeexee gis nañ ni ñi ngi toj oto jàmbur yi ñi ngi sàcc moto jàmbur yi signature bu baax gën nañ ko am say supporters ñoo ngi nii soo leen waxee ñu déggal la ban message nga leen di lancé pour le premier incha allahu rabbi waa Mbour bu ñu ñëwee ñu dalal leen ci jàmm nga bëreeg Bombardier ci jàmm que le meilleur message boobu bëgg nañ nga lancé ko say supporters ñu dégg ko. waaw Lamine xam nga ne supporteru Balla Gaye gis nga nu ñu mel dañoo ànd ak dal. ànd ak yar ànd ak respect ma sopp leen loolu nag ñu xam ne seen mbër bëre daan moo ko tax a jug non violence moo ngi nii. jël leen ko jël leen ko jël leen ko. jël leen jël leen ko jël leen ko leen ko. maa ngi ñaax ñëpp nag. sama bopp laa koy njëkkee ku ñëw na nga ànd ak yar ànd ak discipline ànd ak respect. supporter sa mbër ci kaw sa mbër bëri ci suuf yàlla may ko ndam ñu ñibbi loolu rek laay wax. ñu dem ci combat bala mu mel ni ka barki démb démb ci di guddi Bombardier yéen ñaar déggante ngeen téléphone fi nga xam ni mooy plateau wal fajiri ci Pape Aline biñ ko laajee ni ko combat bi ñaata minutes lay diire mu ni bële danga nga koo joxoon ni ko deux minutes laa la may soo ñëwul moom dina ñëw nee na combat bii mu ngi leen laaj ñaata minutes nga ko may moom Bombardier. le temps passe. loolu paase na mu ngi kanam moom ngi suñu ginnaaw bopp li nekk suñu kanam moom am importance lenn rek laa lay dénk Balla Gaye bi mu bëreeloon ak bii du benn loolu rek laay wax tontu bi démb loolu laa ko wax Balla Gaye bi mu bëreewoon ak bii du benn te bu incha allah war bi suflee naa ko woon ne Balla Gaye mu bëreewoon ak bii du benn mu ñaan mu ni dafa bëgg buy jóge mbuur ñu accompagner ko te ku ne xam na ni yow da yëngu ci non violence parce que Balla gay 2 ku ko xam xam ni dafa mës a làmb ñu dégg suñu baay Xaadim Samb mu ni Bombardier Balla Gaye combat yi mu bëre yëpp war naa mat trent combat waaye boo ko dajalee lépp lépp matu 30 minutes Balla lan mooy sa secret. sant yàlla rek ànd ak sumay staff am encadrement bu baax ñu may jàppale rawatina waa Guédiawaye aussi tamit ak supporteru Balla Gaye 2 yëpp ma poussé ma ñemee entraînement ñemee coono moo tax bu ma ñëwee damay def yàlla